nga ma lu ma métti Ablaye Tima déçu. papa mën naa la non déglu rek waaw dama laaj dara papa pourquoi yow à chaque fois bu ñu toogee man ak yow toujours guerre la te ci yow lay jógee toujours da may attaqué. xam nga lu tax parce que danga ngaa da nga da nga da dul def li ma bëgg saa su ne rek danga may tooñ Ablaye saa su ne rek ci lu luy tot sama xol bi rek ngay def saa su ne rek da may tooñ da may tooñ rek damay toog jàpp sama ñàmbur nek ci sama jàmm ak salaam ngeen may profété di mo togn yow ablay yow warna la wo ñu taxaw fe ma ak yow ci sutura ma samba xamul ma demba xamul ma lepp le 2 millions 2 bama la koy wax ba la koy def pourtant kenn taxawul de ci sutura la ko def parce que ñun lool lan ñu yare won sutura lan moy ndayu nga dem ba ci sa nan ko dama lebal champ pap 2 millions di fen ku la wax man bëggoon naa sa nday yëg 2 millions yi ku la wax bëggoon naa sa nday yëg 2 millions yi ngay weer sa baay di weer sa baay jamono ju njëkk ji doom dina lebal baayam ba ba ñu suul ko te baay ma sàmba du xam ma demba du xam bu ko waxul kenn du xam waaye amatu lil sutura lu ngeen defal seen baay yi wax ko lu ngeen defal seen nday yi wax ko parce que yéen noonu lañ leen yare sutura daal amatu leen ci zéro sutura zéro léegi nag li te mooy deux millions yi moom fa mu dugg loolu mooy seen problème waaye yow tu m'as déçu tu es nag fenkat bu mag nga ku ma bett nga ah. ya xanaa xamoo Diouf. pour lan may lese ko. Diouf xamoo ko xanaa. ah. Diouf gis naa mu rey la ba saam la teg la ne man mu rey moom man. nii laa gisee mu rey la ba teg la ne xam na day rey ni jàppal fële ngay wax dee rey ni eh, xam nga ma man man maa man man tamit xam nga lu ma doon est-ce que. xam nga ya xam nga xaw ma la mais xam naa Diouf da lay rey de. Ah. fot mu rey la si gaawaay si tàngaay bu ngeen di wax lu mu jekk fëggloo ko. ah. yu ko ko ko xamoo Diouf day reyaate. day la. la ilaha Eh, eh, eh, booy puus ma lay dóor ba bul bul ne woon naa la may dox. maa ngi douze ku ci wax ma ko de wax nañ ma wax nañ la loolu. wax nañ ma kon xam nga ma yow. wax nañ ma ko de la mais à l'air. la mais à l'air sa gémmiñ kaaw ne woon naa la yow lu mu yàgg-yàgg maa yow dinañ dajante fu kenn dul fekk. Hmm. tey man ak yow kese ñoo fi nekk. bul xalaat loolu de bul xalaat loolu. man ngaa bàyyi sama jabar wala mënoo ko bàyyi. billaay wallaay talaay bis ni ki tey. Oh. marqué oh, un bul génne de. ku la bëgg kau. xool na la xool. yow yow tey lañ lay mu jéggi ci kaw. yaay sa papa comme demee na noonu te yow li def neexu la te na la 2 millions papa amul eh léegi nag comme toll na la non delloo samay 2 millions. 4 yow. ah koo laaj 2 millions man. yow yaa ngi di xeex ba papa delloo 2 millions yi. parce que sa yaay laaju la deux millions na leer yow yaa dem ba ci sa ndey bëgg a rek rataxle rek bëgg a fen comme yow yow yow yow yow yow yow yow boo toogee journée yow génnewoo ci sa làmmiñ bi lu sa yoon newul ak luñ la laajul yow doo am lu la neex yaa dem ba ci sa ndey toog ak moom waxtaan ba neex nga yulli nga yureeku rek di yureeku rek ba yureeku ne ko sans papa lebal naa ko sax deux million la lan mooy ndey loolu. ba nga xamé né dag may label 2 millions di tok ak sa di ko mënon nga té ci 2 millions ma 2 millions fi la may fekk han ah. ba ma leen dama dan té ba ma leen ba ma yor dama té lu ëpp 2 millions dama léna yor ba ngeen tollu ni ngeen toll 2 millions bu mu tax nga may fonto di yak sama dena ah. woy papa niñ ma juré la ma juré ëppalé wo ma ci mom mom ëppalé wu la ci ci ci man yeen ñaan ñëpp ma bokk jur fi lan lañ fi neub ku nëbb kon lan ngay mer. non xam nga lu tax xam nga lu tax ma mer parce que nettali gi nga ko nettali moo tax. ma neexu nettali gi nag dafa am loo ci umpale. parce que man nettaliwu ma ko moom moo ma laaj jaral na la lii. nee nga man maa ko sama yaay te nee naa la waxuma ko gëmoo ko ba ngay xuloog man te ma jël sama xaalis jox la ko delloo ma. mais xaalis bi délai la woon. waaw léegi bàyyi ma ma sama xaalis. kuy bayi délai bi délai bi ci man lay. sukkandiku ma sama xaalis. ba yoraguma ko léegi. udah da da da ñuy bàyyi ba yegg ca délai ba ma jox la. papa xaaruma délai de comme que coow la la dikkal nag police laa jëm ak yow. sa baay. jaral na la ko. kaw est-ce que wax na la man ñaata nit laa rek. dóor lañ ma wax. wax nañ la rey deux personnes. waaw ki ma njëkk a fan ko lay deuxième fan ko ak nga ko def bu yow nag balu poqotaan naa la. Eh, te yow sa jibi kaw ndax mën naa xam ndax sa tànk dina tegoo ci sama kër jabar. billaay wallaay jaar foofu. wan ma ginnaaw. ah wan ma ginnaaw. waaw. eh. Kaaw léegi nag situation fi mu toll. ak nii ma la def nii. tey bu doon maa yow looy looy def li damay def fii laa fii laa tourné laay def fii laa tourné est-ce que xam nga trois bu la fi fekkee ma ma jam la. waxal ma waaw deux. Ah! fay na portable nga yéex tapet bi nga doon. te jaral na comme que gi lay ci dem rek papa lan nga bëgg yow lan nga bëgg papa ab ah, nga ma jox la même bu fekkoon sama yaay la ko waxal moma jur donte waxuma ak mom daf ma laaj mais lan nga bëgg papa. mais bu nettali Ablaye. way waxuma ko. non dang ko wax. sa yaay ñew ba ci ma papa delo sama xaal wax jeex na. ah delloo sa xaal eh, may may deux jours. mayuma la jox tay la ko soxla. non tay mënul ne de. tay lay nekk de barki rasulallah tay mënul ne. tay mënul ne papa di nga jox sama 2 millions de. léegi lo ci bañu bañu mako ci ah wa ana barke. barke am naa yow sa bay ngay taxul nan lo ci bañul bañu mako barke ngi tok ndax barke tax ma yalla dimbali ma nga ñaanal ma sama yaay ñaanal ma bama ma mën ta duggal la ci kër. yëkëti 2 millions jox tak ko sa loxo. kon barké ngi tok kon kay barké bi ci man la jëgé wa mo nga man ma leen ñaanal. wa ñaanal ma ñaanal ma la ñaanal ñaanal sa nday wa motax ma jox la 2 millions sama barké ngi seen loxo mu ngëb dama ko ngëb. motax ma jox la 2 millions suma koy wadal ngeen ni tok do ko wadal bar la fo koy wadal ya ngi ni yor sama 2 millions bu ko ma yor sa barké abla ya ngi sa maa ngi sa 2 millions sa barké ngi ma téel pip ma wadal pip rek ma toroxal leen ngeen torox yeen ñaan ñëpp ci biir kër pip Ablaye Pire ah! <laughs> Ah, ah! ah xam nga ne fa ma nga baax na de barke bi laa yor de barke bi laa yor de lu gën a garaaw lu doomu aadama di wut suba ba ngoon man moom laa téye barke baa ngi barke baa ngi Ablaye Pire ma waddal barke bi ngeen torox yaag sa ndey ci ma merde fet see da ngeen tekk dara ci kër gi sa ndey gën a bon ñëpp ndey gën a bon ñëpp moom mi wóoyi wóoyi lu di bandi bandi dégg naa taay daa tent sanday deg na tay daten tent da tent bopp bi ba tok di jema jay bandi di tokhum sasa xawma sasa xawma sisi <laughs> affaire fi ne li na bu ci kër gi da bëri de man ni lépp koy suivre di yek ni rek tok ni bay ni ay jaaj du dugg sax dugg sax فيدو فيدو كم ويجن في ترد فكم فيدو من général kan nga daan taxaw fi dañu di wote ha kan nga da ñëw taxaw fi di wote lu xew ba jam jàmm la nekul jam ah lan wa dis wa sa ancien mari bi. ancien ah, mari ba. sa ancien mari bi sa ancien jikar bi. waaw. mom moom mu def menace de mort moy fekk ma si mbir mu mu ne ma yow léegi. dangay dogaan sama jabar li gën a man loolu naqaru bo parce que man góor la ñu daje man ak moom ma ne ko man sa yoon nekku si mu wax ma fii ma ne ko merde ndaxe moom man pare naa si loolu moom ndekete tey na ko si kóor bi may dog di dem rak mu kar ma bul jooy lan bul jooy bul jooy bul jooy yow tamit bul jooy tamit sama nawle bu bul jooy jooy. ma sax. bu ngebal matt bul jooy. jooy ma waaw waaw bul matt sa bopp da ngay gaañ sa bopp yi tamit. waaw mu ñëw waaw mu génne douze coups woo. fetal. mu def ma au <laughs> mur ma ne man nga ma man mu ma yow pare naa pour jël sa bakkan <laughs> man so gisee ma ñew maa ngi door a comprendre bi ngi door a nga wax ma sama sama l'amour l'amour agressif la yaa ngi mooy maa ngi door a comprendre bi ma waxee sama mbugge la ak yow bakkan lay laaj ndaka foofu lay bakkan bi di war dem man nag damaa ñëwoon pour wax la ne la su fekkee bakkan rek moo des si sama mbugge la ak yow bugg naa la torop ndax tamal nga ma lu neex jàmm ak foore kono dal man pulla hawmo duucku jaasila e ham kono hawmo duusku léegi xam naa maa ngi dem maa ngi bay xale bu mool mais awma pexe eh. ngañ mooy toppama rek ngañ mooy toppama ma jël pétal de déreem bàyyil jooy yi da nga wax man tuma jooy góor la yow taxewuloo jooy man tuma jooy sax man góor la ndax bi ma saaga sax saaga naa ko nee na mu merde mënu ko fessee merde jël la poche def loolu yëpp kon li mu génn ci poche bi loolu laa mënul supporter. lu mu génn ci poche am. douze coups lay génn. douze coups douze coups lay ne day dóor ma fii ñaari bal ñaari bal <laughs> fii tamit ñaari bal six coups lay def ma léegi nag bàyyil ma xool la li ma lay xool dernière fois rek. eh dix bàyyil may dem. déglu ma fii la ma la waxoon moo am sama diggante man ak yow. bo duggé do mësa a génn lan do mësa a génn bakkan ngay laaj déglu ma mal man wax gis bàyyil ma dem bakkan lay laaj yow bakkan général man waxuma si ma koy bakkan da e, waye eh xolal na la wo wuy ma général na la wo deng dina la wo dina la wo <laughs> mako ko réglé ngañ man ak mom fi di man la bëgg toroxal dina xam ne man duma toroxal bien Ça va, alhamdulillah. D'accord, journaliste. Ça va leen doom laa bëggoon ñu waxtaane ko xamante nañ man ak yow xam nga ma xam naa la bi nga ma woowee xam naa exactement fan nga jëm ak man xam naa lan nga may doyee ñu ñaar xamante nañ buguma tamen nga top sa mer ba def lo xamanteni mer mo lu ci pousser mais gëmuloo ko parce que man xamna bu baax kep ko ni bëgg nga ko ku dul man nax nga ko parce que tamit da ngay jeeg bo xam ne te ñi la attan bëriwul man dong nga mën defal ñaar daf ma dal tamit waxu mak ta boko topi ba ci bir xam-xam pire la mangi wax ni so amé sa doomi yaral fu mu dem man fa nek mais sa soxna yakal ba fu mu dem du fa meuna tok lol daf man dal ci yow dama la yak ba meuno dem fa tok nit meuno la yor kudul dul man ma bëgg nak yi fi jaar wax yi sew yoy ak kajaw kajaw wax yoy ñu jël ku tek ko nalé te def yi fu mag baña sax di duga ci yi passé nga wax ma rek li nga bëgg ak nak nga ko bëggee su dee bëggatoo nek ci kër gi mu auto la fo nek su dee dang nga namm ay or nga bëgg man na ko jënd su fekke da nga bëgg auto ma jëndal la auto mais dal limu bëgg moy nga baña doxal walu fecc mer ci sama digënté ak yow parce que limi yaq mo ëpp lu mi defal kon xamna ni mën nañ mën nañ waxtan trouver solution xamna naa xam naa la ma dama la xam voilà mi ngi nii mi ngi nii. ngañ yow li nga foog ak li am du benn comme yàlla ak yàlla man wowuma la ngir juboo wowuma la pour ñu nekkaat wowuma la pour lu la neex xam nga lu ma doy yow kaaw mi nga dajal ci mbedd yi di rayante pour lam xam nga da nga ne or ak ay kër lu ma bëgg nga jëndal ma gis nga mbir mi du or ak sa kër yar yor ma ci kër gi yor bu rafet mo dak ay kër ak ay or ak ay auto gis nga sama lex yépp noox mais jubbanteku na yow ñak class way di manke weesuwul lew nga ne leng léngaaral di kilifa di dakante, loo làmb di bëri ak xex pour lan man loolu laa lay mais dayoo ma la pour juboo dayoo ma la pour ànd dayoo ma la pour lonkowaat dayoo ma la pour ñu demaat xut ba ñu yàq déedéet loolu laa lay est ce que da nga dégg man ak kaaw dañoo daje fenn xeex dama lay laaj ndax danga nga koo dégg. déggoo dama ne ku bindulu tam ñu tëgg na tam. man maa moom mbedd mi. moom moo wala kaaw moom mbedd mi. moom mbedd mi wala mbedd mi dafa am buntu bañ koy tëj am ñu fa war a jaar ñu fa war ñu fa war a jaar. kaaw fi la dëkk man fi laa dëkk na dañoo dox daje ñun ñaar. lolan la mané a man ak kaaw daje nañ mais pas man may xeex ak kaaw tollooguma yow bu doon da romb mu romb est-ce xex nam da nga dégg dañu xex ya ko cokkaas ngén ne ci mbéd bi yi ngén né ci mbéd bi ya ko cokkaas yeen ñaar gis nga xam nga da ngay baye ba jaan romb la nga ñëw de forat bi lo c'est trop tard tuddal yalla mëna wess na man ak yow xin la won rek jàll na na dama nga set la ne ma la ne point dama koy répété wat encore une fois pour que nga xam sama diggante ak yow batay sey amna am fa sey bi jeexagul dama lay wax rek pour nga xam sa idée ben benn ñaar ni nga bëgg def kër gi ta nek ku dugg genn sa morom dugg est ce que man balla pëydu yi tekkiwul dara yi nga xam am sagaru ñaar dërëm ñu am ci mbedd ma dañ leen ko may ñu ngi bay ñu dugg ci kër gi fi est-ce que yow xam nga lan la lay waxal ci biti di yàq sa der ngay naayif yow di ñàkk fayda di ñàkk bopp ñu lay manipuler leen doom laa bëgg nga xam ko mooy sama diggante ak yow jeexul sama problème ak kaaw dinaa ko régler pour muy leer sa bopp bokk nga xam ni kaaw boobu ma ko dinaa ko régler quant yow nag yaa ngi noonu ku noppee màgg doon mag mais aafiya ji nga foog ni danga ko war a am yow pour lu la neex def lool laa bëgg nga def sa bopp ne loolu mënul nekk te du am man loolu moo ma intéressé ci sëy nga nekk yow yaa jàpp ni nekkoo ci sëy mi ci sëy nga nekk bu fekkee ne yow sa diine xamoo ko demal nga jànguwaat si diine sa idée matagul lan mooy sa problème yow. mais yow yow li ngay def nii yow mën a mënatee yow boo mënatee woon est-ce que na am yow da ma maa waroon téye ba mu la ba nga xamé né yow ay xeex ak ay kurpañante mo lay dal ak fuma rom nga top ma yow deg na koñ bi fuma aw rek yow yaangi top dima di yëndu pour lan lék lool mën a mën a téye yow. xam lan la wax na li passé dootuma ci wax nañ wax ci li xew. <laughs> ci lañ na nag. baax na ci lañ nek baax na dama dëkk sama dëkkandoo nak ci koñ bi bu ma may ben riir. bu fi amee yaa ko may sa bopp mais dama bëgg yow li ma la wax yow nga xam ne loolu mooy xew su ma a ko waxee si hmm. sama wala laa gi ma kenn ma ko yàqal man damaa firi ne neexul bota dem bota poste jóge nii nag. Ya. bal bi yaa koy of. mbaaru terrain bi yaatu na. ah defal lu la dee. <laughs> yow de arda. waxtaan la dégg nga eh. waaw eh, maa ngi ci biir waaw. voilà arda kaay. kaay. waaw de bul dem nak bul bul wax rek dem. xam nga yooyu wóorul. ah li ci war a déglu. mën naa tax a ah fekk affaire yi ah. bàyyi rek ngeen déglu. ah. <laughs> Eh, waaw léegi léegi.

do wax sa soxla rek. ah do wax sa soxla. ah sama soxla. ku ne nga laajte ko. dama sa soxla yow tamit. ni ngi non de man kay. ar wax na wax wax wax wa waaw nee naa la do wax na ma dama ko bëgg dégg sa gémmiñ nga wax ma. ba mo ngi xaar ci ma saw ni ma taxaw xaar la nga dem saw ñewat ma saw ñu ñu te mëno ko wax balaa ngay dem. ah mëno ko wax. loolu laal bëggoon a wax loolu laal bëggoon loolu laal bëggoon a wax. loolu lan. moom moom moom waxu la Ardo waxu laa yaa wax. Ardo wax na ma mais damaa bëgg nga waxaat ko. ah. damaa bëgg nga waxaat ko. wax la ko yow. waaw. mooy lu mu la wax. lan la ma wax. Ardo waxu la dara laa. an kay wax na ma dara. mu ne la dara. yow li ko wax loolu la ma wax. waaw loolu la li ma waxaat ma ko. ma wax la ko ardo ardo ardo ardo moom maa man ma. yow kañ nga mel nii. Hmm? lu ne nga laal ko sa yaram bi kañ nga mel nii. li nga wax Ardo mënoo ma ko répété waat rek. moom laa la bëgg a wax ni moom wax naa ko mu wax la ko moom kon jarul ngeen fiy jaar sax ah ñu wax naa ko pour ngeen ba fee pour nga bañ fee jaar. yow neex nga de. Ah? li nga wax Ardo ma ko wax man mi waaw loolu laa wax loolu laa wax loolu lan. moom expliqué affaire bi pour nga pour mu wax la ko parce que. Ah. yow da nga ko koo wax pour moom mu waxaat ma. pour wax la ko wax man damaa bëgg wax ko. moom may may may mag xam na yow xam na yow <laughs> léegi da ngaa faajaaree muuma mënoo wax. li nga wax li nga wax Ardo man doo ma ko waxaat rek ma dégg. moom laa la moom laa la waaw wax ko. قاعد قاعد من يوم من جد قاعد قاعد سمندك وقوق وقوق مين من هو خل من وانا على وخل وانا على وخل كي وخل وانا على وقوق لك وقوق وانا على وخل ما ما وقوق وقوق وقوق وقف بيني ومواتم لما ما دي سمتول من ترى من ما دي بوقوق لك wax naa ko arde mais man lu ma ko téeméer wax man tamit